mbokki ñi teewlu si Jàllale TV dalee ak jàmm dañuy door addu jëmale ci situation bi ñeel convocation yi nemmeeku depuis démb ci langue journaliste yi li ni mel nag mi ngi sampe ay coow fi ci mim réew boobaak léegi xalaat yi nag mi ngi tukkee fu nekk ginnaaw nag convocation bu Pape Moussa Traoré di ki nga xamante ne ni moom mooy directeur de publication bu La Tribune ginnaaw gi nag ñu daal di convoqué directeur bu Le Quotidien bu Madiambal Diagne Madiambal Diagne ci jëm boppam moom ma ngi cay addu jëmale jamono yi dafa tukki waaye nag mel na ni écourté na boobu les voyage ci réaction bi nga xam ne daal na ko indi ci wàll wi moom Madiambal Diagne ginnaaw nag bañ convoqué ki di directeur de publication wam kàddu yi ni mel la daal di mu nekk ca biti mi ngi indi soutien wam jàppale ki nga xamante ne ni moo di Mouhamed Gueye nekk directeur de publication bu rédaction Le Quotidien ak képp koo xamante ne ni liggéeykat nga foofee ca boobule bërëb ci message bi nga xamante ne ni daal dina ko biral moom Madiambal Diagne mi ngi fësal ak renouveler confiance gi mu am ci directeur de publication bu Le Quotidien ca loolee sax mi nga xam xamle ni dina dellusiwaat fii ci ndakaaru du yàgg dara ndax ci li mu xamle moo di soxlawul woon ñuy teg loxo kii di monsieur Guèye moom Madiambal Diagne taxawaay gi ni mel la am ci bile convocation te xamle ni dina dellusiwaat ci Dakar du yàgg dara ngir li ni mel daal di mën a dakk di fàttali nag bile convocation bu Mouhamed Guèye mu ngi am ginnaaw nag bañ daal di tegee loxo kii di Pape Moussa Traoré loolu mi ngi am gannaaw ba la tribune dal di siwale benn article doon addu jëmale ci nomination bu général Souleymane Kandé ñu Inde ca loolee sax Pape Moussa Traoré ci jëm boppam moom mujjee nañ kaa libéré niki démb ginnaaw audition bi nga xamante ne nii jeex na ay vingt heures ñu placé ko en garde à vue mujjee nañ kaa teggi loxo waaye niki tey ci àjjuma ji daat nañ ko convoqué waat ci ay complément d'information yoo xam ne war na kaa indi ci li tax ñu daal di koy convoqué saa si nag ñeel bi mbir organisation bu presse bi daal dina mobiliser wu ñoom ñëpp ngir daal di jàppal mbagg journaliste yi nga xam ne jot nañ a APR ma ngi cay àddu jëmale ab laaj nag la daal di yëkkati di laajte ba xam jamono yi dañuy tere ñu daal di wax ci ki nga xamante ne ni moo di premier ministre ak chef de parti di Ousmane Sonko muy laaj ba tey ana lan moo wundu forme de menace yu bees yi moom Abdou Mbow ca loolee mu jàpp ne nag presse bi ci jëm boppam lañ bëgg a museler nee na li ni mel tentative de musellement de la presse la ginnaaw convocation yu police bi def teg ci ay arrestation ak ay condamnation arbitraire yenn ci ay lanceur ni journaliste yi ñoom ñoo jël yoon bi ci ay convocation yu bëri yoo xamante ni moom daat na ko nemmeeku ca loolee muy xamle ni liberté d'opinion li ñu war a garantir la waaye tamit daal di koy garantir bépp citoyen boo xamante ne ni nam nga yëkkati kàddu ndax li ni mel moom mooy base de liberté bu ñu sukkandikoo ci député bi ba tey ndem posture yi jamono yi daal dina changé loolee mu daal di tënku ci ay positionnement ñeel langue politique bi faaw it tamit ñu xew ci kàddu yi nga xamante ne ni moom yëkkati na ko moom Abdou Mbow mi ngi jeexalee ci dellu siwaat ci laaj ba mu dooree moo di ndax jamono yi dañuy tere ñu daal di wax ci ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Sonko muy xamle ne nag li ni mel bu dee dëgg la mi ngi tënku ci farce bu mauvais goût li ni mel nag doon gis-gis bi nga xamante ne ni kii di Abdou Mbow daal dina ko am ginnaaw nag convocation yi ñemeeku ci langu journaliste yi faaw ñu daal di sàmm liberté d'opinion fexe ba askan wi ñu daal leen mën a garantiral lépp lu jëm ci génnee seen xalaat koo xamante ni da leen koy xañ wala mu leen koy tere fii ci mim réew ci xibaar yi ba tey bi la yoon nag Juan Branco moom ci jëm boppam moom mooy addu jëmale di défendre régime bu Diomaye fay bi ginnaaw nag nemmeeku na ni ay attaque lay recevoir saa si moom avocat franco espagnol bi mi ngi démentir di wet weddi bépp information boo xamante ne ni site bi di afrique confidentielle point com dat na ci ñëw yooyu la information sax journaux yi di la tribune ak le quotidien jot nañ ko yooyee tukkee ci afrique confidentielle point com concerné nag affectation bu général Kandé foofee ca mm. New Delhi ak tentative yañ ca tuddoo mu ñeel Ousmane Sonko ne dafa bëgg jënd lépp lu jëm ci ay système de surveillance jàpp na ni nag moom Branco mi nga xam le ni xibaar yooyee amul benn fondement teguwul ci lenn avocat bi di xam le ni régime sénégalais bi jamono yi ay tentative de déstabilisation intérieure moom la nekk di jot saa si te it malheureusement ay nit yoo xamante ne koy defee ca loolee Branco di xam xamle ni système de surveillance boobee système la bu waa Israël taxawal te it états wala sax Russie mënuñoo jébbal ay licence ci wàll wi xibaar gi ni mu daal di ko ci indi ngir weddi article bi ñu bind ci wàll wi ci xamle ne États-Unis ci jëm boppam dafa bañ a jébbal système bi ni mel autorité yu bees yi fare ci mim réew ñuy jàpp ci boobu boobule xibaar ne États-Unis wala sax Russie ñoom amuñu màkkaama wala mën-mën gi ñeel ñu daal di distribuer ay licence ñeel boobu système de surveillance Branco di xamle ba tey ni concession bi ni mel kenn amu ci qualification waaye ca loolee ba tey mi ngi xamle ne ak yi mu daal di gis yenn ci ay journaliste taxawee ko du dara lu dul ignorance ak médiocrité ca beneen bor ba ñàkk xam gu mag a mag maga nga ca avocat bi di xamle ni li ni mel dara taxu koo jokk lu dul nag discrédité ay nit yoo xamante ne ni mel na ni dañ leen di inquiété bu baax a baax wala sax ñuy inquiété seeni auteur maître Branco jàpp na jamono yi ay nit dañoo taxaw temb ngir déstabiliser xamante ne ni jël na ko lépp si jëmmal liggéey gu ànd ak transparence Branco nag jamono yi am taxawaayu défendre régime bi ci bépp attaque boo xamante ne ni jamono yi jàpp na ni da koy daal di recevoir ngir nag ñu daal di leen mën a déstabiliser si liggéey gi ñuy wëyal boobaak léegi dañuy jeexal xibaar yi ak mbirub Doro Gaye bi saa si nag mi ngi jot xibaar bu neexul lool ñu koy toppee moom Doro Gaye ci lu jëm ci wàllub escroquerie koppar gi buñ koy xayma toll na ci un milliard ba bu ñu sukkandikoo ci libération mu risqué bëri na loola ndax parquet bi namm na jamono ñu daat koy teg sous mandat de dépôt ba nuppi daal di ubbi information judiciaire ci wàll wi waaye nag jamono yi juge bu troisième cabinet bi moom moo instruire bi le dossier homme d'affaires bi jege lool Macky Sall ginnaaw retour de parquet bi mu amoon niki démb tey jii ci àjjuma ji ndem situation bi changé wul dinañ ko defeere moom Doro Gaye kon nag li parquet bi na ma tëral ci wàll wi mooy ñu daal di koy placer sous mandat de dépôt ba nuppi daal di ubbi information judiciaire loolee nag juge bu troisième cabinet bi moo ko war a càmbar li nag doon situation bu doy waar lool ci kii di Doro Gaye ci fàttali moom Doro Gaye ginnaaw biñ ko tegee loxo ci wàll wi amul benn weddi goo xamante ne ni indi na ko ci li maanaam bépp tuuma buñ teg ci dam jëm ci wàllu escroquerie financière ak ay suuf yoo xam ne da koo jaayoon jëm ci ne Macky Sall ci jëm boppam digal ko ngir mu daal di jaay yenn ci ay suuf maanaam bépp liggéey boo xamante ni def na ko Macky Sall ci jëm boppam moo ko ca jox ndigal moom Doro Gaye gannaawam ñu daal di régler mbir mi à l'amiable maanaam waxtaanee ko ba mbir mi daal di mën a antu ca loolee moom dafay daal di jébbal ak reliquat xaaju koppar gi nga xamante ni moom lañ koy toppee mu daal di koy jébbal plaignant yi leneen li nag mu daal di koy fay fii ak juillet deux mille vingt quatre mu doon waxtaan goo xamante ni ni sekkoon na ko ay avocat wam ñu daal di koy teg table bi maanaam ci table yoon ngir nag mbir mi ñu daal di koy mën a xayma càmbar ko ba moom mu bañ toppee jamono yi mu daal di koy fay ginnaaw nag waxtaan googee nga xam ne bëgg nañu daal di koy def saa si nag mbir mi mu ngi wéy amul lenn loo xamante ni tukkee na ci ne ñu daal di koy waxtaanee wala sax ñu daal di régler mbir mi à l'amiable saa si nag mbir mi mi ngi metti lool ci côté moom Doro Gaye ndax li ni mel la parquet bi daal di tëral lenge yi mu ngi ci loxo juge troisième cabinet bi moom mi daal di yor bile dossier wax ko càmbar indi ci àtte gi ni mel mbokk ñiy teewlu si Jàllale TV la ñuy taxaw fàttali leen ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ leen a rëccu ci suñuy programme